plan A ak plan B plan A mois de mars ñu ne waa ji bu ngeen ko falee dootu leen am ay boîte de nuit musiciens yi dootuñu wayati day fexe di muurloo jigéen ñi état islamique la fiy indi gàmmu dootul amati magal dotul amati gis ngeen ko day mur ñaari jabaram ibadu la wala du ibadu yena ko waxon de wëlbataku ne ko li nga yor ci ay terrain ak merkales ak li, ak la, ak lele khalis bi beggon nga ci jot nangam beggon nga ci jot yoy yep ngeen jël teg dox ñu nak yeen yote bi ngeen di dugal pion ñuy dugal pion ngeen dem ba ci bir ngeen créer sen viol ci ki nga newon day tej boîte de nuit jigen dotu fi wayati da ngeen di muru yeen ñep état islamique lay tej bobu jallut ngeen ne viol viol bi ñu koy dàqanteeg yéen ba mu teleen tej ngeen ne am ngeen ay vidéo yu ngeen yor yeen nga ak ay preuve léegi tu leen preuve da ngeen di dem di monter ay vidéo pour jema a diaboliser waaye jaarama mafia kàcc légui nak bi ngeen jaxlé ba jaxlé ngeen dem wowi ji wa bitim rew sen bay ki nga xamné moy joutal sen bay Macky Sall moy Macron ngeen wowi sen wa dekk ñu ñew def def def dara wu légui nak ngeen dem plan B légui waxatu len wi yol a ngi ci lan day ñam comme ñep waye di ngeen xamné ciaga ji yeen la gor jigen ñi yeen la faramason yi yeen la lesbienne yi yeen la bisexuel yen la yen xol li yalla gëna laq ci doomu adama ngeen luqati ko di ci roof ay coccyx Tange Tandian yow dégg na la nga na yow ya monté ay vidéo ba andi tek waye yow Tange Tandian yow ma ngi lay parel loo amna ben na bu goor bo xam ne mi ngi rëcc ci bang ko naxé ba mu tëddee la yow temps tànjaan parce que yow da ngay puus ñu lay puusal fi mu toll nii li ko jaaxal bëgg naa wax te bu waxee di nga génn réew mi waaye li ko jaaxal loolu da ko defoon par erreur te xamul bu ko defee nan la ko ay mbokkam di jàppee parce que lu mu doon nëbb la deuxième chose mooy réew mi nekk nañ ci réew moo xam ne góor jigéen yi ñooy diriger réew mi góor jigéen yi ñooy dóore te doomi sénégalais yi duñu jàppale nit ñi comme ju nekk ca mbuur gor yang yang koy kot diko menacer ba mom moy défendre bopam parce que réew mi ay jam ngeen ba ma wal fajr nak ñu ne mam Macky Sall gor jigen bi nga xamne mom lañ ne criminaliser ñu l'homosexualité mu bañ amna 41 ci vote kon ndekete mi 41 de gor jigen ak ay bisexuel ak ay homosexuel ñu ngi ci bir kon fi nak lañu kenn ku ne wara jog pour wax tas tamba tanjang yow mi dem ba yakar ne amatul julit wala julit yi fi nek yeen domi làppato yi yeena len upp doore wala am ngeen juge bo xamanteni ni na défendre yor ngeen sen police yor sen gendarmerie ba tax munoo respecter julit yi nek ci réew mi ba yow taas tàññaa yow gor jigen bi gën bon ci Sénégal yow ya sol yere diine di ci wax lu la neex tans tanya yow gor jigen bi yow tans gone gii bes bu pare pour wax ah. ta neena bu waxe di nga xam mom moy kan mang koy négocier nak dama bëgg mu waxal ko bopam parce que li ma wax ni mom moko wara wax parce que mom mo pousse nee ko nak sa rëccu ci kaw suuf fi nga ko mëna waxe boko waxelu fi kérok yomal xiyam do ko mëna wax ma ngi négocier nak ta yow tans xam nga li ma lay wax amna ben boy bo xamne ne dang ko naxoon fay ko khalis mu pousal la ay day ba pare nga ne ko yow fal force ding ko pousal fofu ñaara fam def nga lu bon boy bi def na lu bon waye yow ñaari bon nga def da nga violet tuum tap nga violet parce que boy bi lolu neexu ko won ñewul won pour lolu mais comme rof na la ba pare pour bañ nga yole ko fofu nga ko jaar mu nangu nga rof mu ko bëgg a wax nak ma ngi négocier ak mom te bes boko wowe téléphone dina la enregistrer envoyer ma enregistrement bi deng nga lima la wax ta Senegal, fi mu toll problème mu góor jigéen yi nekkatul kaa problème ñi naxé nekatul nekkatul yeen ñi nangu ñu nax leen yeen ay bi yeen yeen ay bi nañ dem jëli ji tansal tans jigen do meram ji nga mom mo solo solo julit taxaw di expliquer tans tanya nañ dem jëli la bala may ñew dugg sama question tay nak andina ay question andina ay question question yo xamne ne dégg nga maam fu ko bacc fu ne soxla na ci ay réponse ki Sénégal partager len mali ki kan la goos bi ni Tange Tandian. xaar ana ana ana goos bi goos bi question bi yow Tange Tandian yow dom ram da nga wara tontu ci li bala ngay tok ci télé yi di expliquer dem di dag ji ay vidéo di andi waye gis nga rew mi <laughs> tolu nañ ko xamné am ngeen problème de parce que dootu leen waxati te kenn du wax ca caméra am tiktok Tange Tandian koñ bi xana war ko xamé xam na ko goor jigen xana koñ bi war xamé bu xàmmee kay tax na koñ bi war ngeen ko xamé fi ngeen nekkon di teddé tëddee guddeeg bëccëg ba mu feebar ba sapeur pompier jël ci way yéen koy ko bu baax yéen koy ko bu baax tay babakar ndjay goor jigen mo ngi ne à côté ci wétu édeka e bi ngeen di xex fi guddeeg bëccëg di leen lu tar né ay goor jigen salte ngeen fi la dekon ci koñ bi yéen ya, a fatale ko bu baax kon temps sa jamono dama amuloon so jot mais bama dege ñu nan yow da ngay xassata ci net beeg yoy te yow muso déclarer ne yow goor jigéen nga lu tax doo déclaré loolu xaaral ma ut preuve ci maire yi nga xol loolu maire yi maire yi nga xam ñoko fekke mo ngi ni jaay ko du jën yi xaaral tànta tànta du fii la yaa Zeyda dëkkoon. waaw fii la dëkkoon ñoom Ouzin Keita dëkkuñu woon fii. dëkkoon nañ dëkk benn. benn la waaw ñoom ñoom ñoom Tange Tandian fii lañ dëkkoon. waaw voilà moo ngi noonu. waaw ñoom ñëpp fii dëkkoon waaw dafa am changement waaw. léegi yaakaar na loolu leer na loolu leer na léegi preuve yaa ngoog Tange Tandian xam nga ne góor jigéen nga fii nga jàpp Ouzin Keita tëddee ko ba mu feebar tedde ko ba mu feebar sapeur pop moo moko jël ci fii jour bobu non ndax tanki mënu won dox te yow mom temps amon nga ay problème tank tànk yaa ngi dox da nga non wax ni set boy dox sa tanki ci poj bi ci kaw ñaari ki yi fu ñuy dugalee noonu boo dëggee day metti ndax tellement que da nga dóorante ba yow sa ndoxu yaram bi lepp fépp fo xam ay articulation la dafa yaqku won ba loolu bu bon nga doom xaram bu bon nek na da ngay xastaat te yow gëmo dara maa ngi nii maa ko wax bu la neexee defal rappel man la si waaw tegal la sewa tans xambe nga table yi do doomi ram ta ta gis nga sa yere julit bi nga sol julit rew mi ño amul ku len défendre rek xamul ñuy ragal nak li ñuy ragal la xamul lan la julit ci ci rew mi ñi yaakar na ñom ay julit lañ li ñuy ragal ci rew mi war la bayyi nga sol ko solo kan gu bon gi te yak te yu yebbi musiba ci sa gemmeñ gi mais solo li ñun rek problème bi neena len xex bi du xexu serigne du xexu kep ku yaakar ne jub nga xex bi bayi len ñun boy mbedd yi ñu jakarlo xaj yi parce que xex bi ku yaru mënu ko xex xex bi ku bëggul ay saaga mënu ko xex parce que ay xaj lañu amal affaire ak mbam il faut nga ngab saw yet lepp lo xamantene arme la nga ngab ko ak ñi parce que ñi duñu ay nit ñi débat di de demul ak ñom di wax ak ñom mbiri yalla demul ak ñom ñetti fanu soxla wuñ ko soxlawuñu ku len wax ci Serigne Touba wuñ ku len wax ci Alaaji Malik wuñ ku len wax ci Baye ñi xam nga luñu soxla boy ak ñom yow sa bop da nga yaakar ne doto de yow sa bop do xalat ñetti fanu bammel yow sa bop do nek nit ko xamne da ngay calculer aljana ak safara ñi kuy ak mom il faut nga yor mentalité bop ay yar mom jël ko nga tek ko nele qala lahu qala rasul jël ko nga tek ko nele qala ñetti fanu bammel jël ko nga tek ko nele kala suba la nara de, jël ko nga tek ko nële ta def œil pour œil dent pour dent xam ñi ñii yaakaaruñ ne dinañ de ta ku mëna xex ak ñom ku ne moy ku yaakaar ne yow sa bop do de parce que ñi ay xat lañ ay mam, ay domaram ba para nak ay domaram yor yor ay télé ak ñom fo nga don domaram deug pour mëna a jàkkaarloog di deug sen day ba tok ci kaw yaax bi parce que ñi duñu ay nit ñi duñu ay nit parce que yenn ku mëna tok diko def ci kanamu aw askan ta do ba pare dem solo ji solokaan bo xam melokaan bo xam ne mooy loolu doo nit ku ne bul saga wala bul wax ak ñi ni waxal sa wax ba pare nit ñi dinañ deg billahi yow sa bop yow mi koy wax sa yow do nit demal nga jëli seetu nga vérifier wat sa bop nga xol yow lan nga kan moo yóbbu sam xel wala chapitre numéro 1 tëj taas lolu ma ngi koy lijeenti boy bobu dama bëgg mu ñew waxal bopam li nga ko def mais nag góorgóorlu leen ci li ngeen japp de parce que seen dernier morceau mi ngi bu len yalla natto ba li ñuy def ni ñu réussir ko doomu làppato dootul des ci suuf Sénégal parce que ñun suñu bopp ñoo leen di porte plainte bu ko Ousmane Sonko deful ñun dinañ ko topp ba sës ko ci miir bi mu def ko parce que yeen ñi ñëpp boy bu ci mëna toog ci télé nag toogal loo mën parce que bii mooy seen dernier virage loo leen ngànk ngànk leen ko bu soobee yàlla bu lii bu ñu fexee ba mu réussir diaspora bi dañ leen di wër dinañ leen wër fépp parce que lii di ngeen répondre à l'acte kooku moom na leen leer léegi nag ñun comme moment bi yéen a moomee vent def leen lu ngeen mën ci ñun loo leen deful rek fu yàlla nekkul rey leen ñu fu ngeen lu ngeen xalaat def def leen ko parce que xam naa ne ñun bu ñu leen jekkoo ba pare <laughs> kenn ko mën a lijjanti lii faw ngeen dem wuyu parce que yéen fi nekk di def lu leen neex di ko def lu leen neex ay caga ak ay bisexuel ak ay góor jigéen ñoo fi toog tiim nit ñi muy journaliste muy leneen mais plainte yi day taw fu ne parce que plainte yëpp dañ ko plainte toog di leen xaar kooku maa mala ko wax def len lu gene man nak parce que ñun buñu len jéko problème dina am lu leer la len wax nak légui nak nañ def virus ma am ñuma ma ziar yi parce que dëkk bi dañu baxo di def ziar ziar dama dama damay ziar wala ma dam wala mu magal te nak ci nak la yar xaaral ma andi lat len temps tàññaa ba paré do pour xalé xam. war nga ko xamé comme Zozo góor jigéen xana ko ñu war nga ko kay tax na ko ñu bi ko ngeen ko xamé fi ngeen nekkoon di ko tëddee gu dégg bëccëg ba mu feebar ba sapeur pompier jël si ko yéen a koy fàttaliku bu baax yéen a koy fàttaliku bu baax temps yi Babacar Ndiaye góor jigéen mu ngi dëkkoon ne à côté ci wetu EDK bi ngeen di xeex fii gu dégg bëccëg di leen tegal lu tar nee na yéen ay góor jigéen yi salte ngeen fii la dëkkoon ci koñ bi yéen a koy fàttaliku bu baax kon temps saa jamono dama amul woon sa jot mais ba ma déggee ñu naan yow da ngay xasaate ci net beeg yooyu te yow mosoo déclaré ne yow góor jigéen nga lu tax doo déclaré loolu xaaral ma ut preuve ci maire yi nga xool loolu maire yi nga xam ne ñoo ko fekkee moo ngi nii jaay ko du jëni yi xaaral tànta tànta du fii la yaa Zeyda dëkkoon. waaw dëkkoon ñoom Ouzin Keita dëkkuñu woon fii. dëkkoon nañ benn. benn la waaw ñoom ñoom ñoom Tans Tandia fii lañ dëkkoon. waaw voilà moo ngi noonu. waaw ñoom am changement. waaw léegi yaakaar na loolu leer na loolu leer na léegi preuve yaa ngoog Tans Tandia xam nga ne góor jigéen nga ki nga jàpp Ouzin Keita tëddee ko ba mu feebar tedde ko ba mu feebar sapeur pompier moko jël si fi jour bobu non ndax tanki mu won dox te yow mom tan sa amoon nga ay problème mu tànk yaa ngi nii bu doon dox da nga doon wax ne set boy dox sa tanki ci poj bi ci kaw ñaari ki fu ñuy bo noonu boo dëggee day duul muutalaan bi ba yow sa ndoxu yaram bi lépp foo xam ne articulation la dafa yàqu woon muutalaan gi loolu bu bon nga doomu xaram bu bon nek na da ngay xastaat te yow gëmo dara ma ngi ni ma ko wax bu la neexee dafa rappelé dama la seex seex ko wax dégg nga seex li mu la régler sa bopp régler sa pecc ñu ngi ñëw ci yow nag pareeguñ enquêtes yaa ngi ñëw de enquêtes ñu ngi ñëw de léegi nag fii may dugg nii xaaral voilà ma defaru ba pare diikum daakum kuuf ngappit doo ko dem na dugg pare leen nag question la rek question la de yéen a bëgg a wone rek

です。 Sariya feeñ e e na man rek dama ci am ay question dama ci am ay question gannaaw yéen dem yee Babacar andiwaat ko jàpp leen ne Babacar bàyyi nañu ak ay problème yóbbaale na ay galon te xamuñu galon yi galon yi lan la galon yi xamuñu galon yi lan la yéen nag dama bëgg yéen nag tiijaan yi foo wax ak yéen te gis nga de saay bu def seen musiba ak màggata nga ci biir nee naa la paa yi ñooy mooñ ñooy muccar ñi ñooy laxas ñooy lakkar ci nee nañ feeñal nañ Babacar de damaa bëggoon ngeen ne Babacar dem na bàyyi ñoo ay problème yóbbu na ay galon te waxuñu ñu lu ci galon Babacar ñëw na fekkat ñu ak ay problème damay laaj yéen tijaan yi dimbali leen ñu ngir yàlla ak yonante bi balaa Babacar di dem na sàkk pexe ci suñu problème yii nga xam ne moom ak Senghor ñoo takkalante woon ay galon comme andiwaat ngeen ko nag andi wulen. an andiwu leen maam Abdou mi dem barki dem boo njaay parce que xam ngeen ne doom yaa ngi dund di leen xool ngeen dem yëkkati ci Babacar andi ko ba pare nag ormaalu leen Babacar Babacar amul fenn fu mu war a génn lu dul ci tableau l'école français gis ngeen écriture français yi xanaa da ngeen ñu bëgg woon ne Babacar collabo la amul fenn fu mu war a mën a feeñ daara yi ni mu bare baree Babacar ñu tabax jumaa joo xamante ni def nañ ci un milliard ak wat benen milliard muy 2 milliards way way teranga biñ def ci joji yeb babakar mën ta dem feeñ ci bir juma ja babakar amul fenn fu muy feeñ ci l'école français yi nga xamne ñu ngi jangal suñu doom yi ngor jigen barki dem bo ñay ñew nañ baas bir tiwaawoon xalé yi ñoo kaas yow gor ji ak salonette yu reuy yi gino kaas nga dëppoo sa poto sàmbur mel ni ko dëppoo du pot douce ah yéen daal yéen daal nii ngeen def pay rek du ngeen sax wormal pay babakar 1900 ba xër ñet ba léegi ngeen wat ko ne ko dang ci at tableau bu ñuy bind ay français tableau alcorane ne fi babakar wa kërëm tabax juma jo xamanteni 1 milliard lañu joxé won doyut ñu wat benen milliard juma joju nga xamne ne teranga bu ne mi ngi ci bir juma ji babakar fofu niñ ko ormale yeen mënu leena sagal babakar sax feñal ko ci bir juma joju wala da ngeen fa amul accès yéen dekkatu di li question la nak question rek damay laaj rek Ya, ala de kuma yobbu yóbbu kër tax nak lay bañ yenn ya, luqati ji babakar andiko defati sen mënin ñu ngi joy fi ngor jigen yobbu ya, nañu loi pour ñu criminaliser ngor jigen ngeen tok ba jamono ji ñu wara criminaliser ngor jigen criminaliser ko yeen pay ngeen tok fi di xullee ba ñuy jël babakar di tek ci tableau l'école ne mo feñ fi babakar lu mo andale andale na pétrole andale na gaz andale na zircon andale na arsiwu wu na leer de question la rek problème nak lay bañ question la de yéen ko andi tek ko fi mu feñ problème bi na ci réew mi ñu wara xex élection nga xam ñu ngay kaas droit ngeen jëli ji babakar andi tek ko fi ne ko ñuk ne babakar mo feñ di ci sonal xalé yi ñuy daw di photo def yi kenn xamul xam nga pa yi ñi ñi xam nga ñi ñi ñi ñi ku len top dof ñu daflo sak njabot parce que ñi ay ram lañ nee naa leen ramu dëkk bi ay pa lañ duñu ay xalé ay pa lañ babakar lañ andi non de nee nañ teg nañ ko ci tableau buñu bind ay français ñaata tableau ño nekk ci biir sénégal ñu bind ci ay alcorane dara yaangi fi juma yaangi fi bo duggé wax ju am musique du am dara du am ñu waxu ba biir école ne babakar dang ci école yo xam ne ñu ngi lay fay jangal seen doom yi ngor jigen de ngeen dafa babakar dang xanaa babakar fofu rek la mëna a génn mënul génn feneen fofu dong tey lii lii kenn mënu ko wax ñu dem andiwaat dara Tijaan yi question laa leen laaj di tax laay bañ nak yéen ko andi tek. ko yéen iya a toog ba dem tànn ji ñi andiulen àdduna yëpp andi leen andiwu leen Maodo andiwu leen ñu ndaw ñi andiwu leen maam Abdou eh, mi nga ndaw ñi yi di ko fàttaliku andiwu ko ngeen demee jëli di Babacar borom galon yi andi tek. ñu ngi ni ñu may laaj bu feñé ma andalé na galon yi archive galon yi comme dem na ngeen nëbbuñu ko ah ta ñun xamuñu nu galon débé andalé nako waaw wala déet pétrole beeg gaz beeg or bi ndax Babacar dina ci taxaw troisième question bi moy Babacar dem nga bayi ñok problème ñëwaat nga fekk ñok problème ndax Babacar bala nga dem di nga régler problème yi question la rek question la may laaj tamit troisième bi moy quatrième bi moy Babacar juma ji ñu tabax def ci 2 milliards ba ñep tok fa sutu teranga yep ñew fa babakar makki du dugg ci école makki ci juma lay dugg kilifa yep sa sët yi nga fi bàyyi yep ñu ngi dugg ci juma ji ndax juma ji la neexul am diit ba feeñoo fa dem feeñi ci l'école français question la ñent question la leen jox ngeen tontu ma ci tidiane bu ngeen ma ci dimbali parce que li bu fekkon da ngeen dem tok ci ben ruq bo xamne ne ndof gi yeen dong la ñor ngeen dof dof lu garawut mais seen dof-dof lu gi da ngeen gàddu seeni i saak dof dugal ko ci ba pare ñun ñëpp ngeen dugal ñu ci biir saak bi yóbbaale léegi ku nekk Sénégal rek ne dof yi buñ ne dof yi yéen a tax ñu ne ñu dof yi moo tax il faut ñu leen di tontu parce que da ngeen di dof-dof ba pare dofaaleel ñu voilà ma dem feneen boobu laa leen jox yéen génne leen fii teel ay continuer ak seen i dof a teg nit ñi ay diil yéen bu nit ñi lijjanti Sénégal nu mu doxee yéen a ngi wër di xool nan ngeen tege ay dil am na beneen am na beneen boo xam ne mooy daj dëpp gi boobu moom mooy daj dëpp gi maa xaar ba gis kuma fi saaga rek Video la andi de yena jeli babakar feñal ko bokkatul ci jamono ngeen wat ko ci jamono lim fi fek rek lolou lay encaissé lum fi fek rek ci li na ci ndab li rek lañ koy yakal ne ko li mo fi am wala problème nak lay bañ diina ji mom bu sobe yàlla di ngeen ko fonku de wala bu sobe yàlla di ngeen nek ay nit de moo tax trois heures laa fi agsi fekk fi it daam muy suñu kilifa te bu waxee ba noppi ñëpp rafetlu ko diine ji nag dafa am lu ciy gan loo xam ne mooy gaaf gi gaaf gi mooy diine joo xam ne yaakaar nañ ne lépp ak ñaan mën na koo régler lépp def nañ ne ak ñaan man na koo régler te loolu gan la ci diine ji benn jullit koo fi gis mu ne rasulullah yi fi gën kenn wuutewu ci jullit ñi diine islam xeet wi xayru ummatin uxrijat linnaas ba noppi mënaguñoo régler àdduna te sëñ Cheikh Tidiane si radiyallahu taala anhu dafa wax ne jëpp diine joo xam ne da ngay dund sawara ba noppi door a faatu tabbi aljanna jooju diine jógewut ci yàlla moo tax mu ne fa inna diina rasulillahi fiihi lana xallul masaakili duniyaaha wa uxraaha kon jullit ñi tey ñoo waroon a jiite àdduna ñoo war a jiite àdduna àllaaxira tey nag te loolu mag ñi nanguwuñ ko woon ndax lu nekk ñu yaakaar ne mag ñi boo waxee ñu ne mag ñi def nañ lépp mag ñi def nañ lépp ndaxam ak ñi de bañ ñëwee buñ tëddoon ne rasul lay def na lépp kon développement bi Cheikh Ali wax di am waaye sëñ Mbay Jaxate weddi na leen sëñ Mbay Jaxate daf ne te yàlla kat mën na lu ne waaye nag du tax mu def lu ne ngir sàkk na dëkk fu ne sàkkal ko it yoon wa ca jëm dëkk bu waay suubum ngërëm te taxawul dana ca dem yàlla li lay di dogalam te kenn du soppi dogalam développement am na dëkk am na dëkk la am na yoon wu ca jëm sant bi ñuy wax dëkk la am na yoon wu ca jëm une bonne éducation dëkk la am na yoon wu ca jëm waaye lépp suñ yaakaaree ne mag ñi def nañ ko léegi jeex na coono mooy am yàlla du defal kenn lu man def leen li man ma defal leen li ngeen mënut wasalaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam wa rahmatullahi jërëjëf uh, imaam Fadilou Tall kon defe naa mooy doon kàddu gi mujj ci e, ñi nga xam ne ñoo doon def seen contribution. yàlla di ngeen dégg fulla de fulla moom paa yi dinañ ci ruq yi wax de. ñi noppi woon yëpp dinañ fexe ba ñu wax waaye dinañ wax de parce que naxaate bi dafa yàgg di lii lañ fi yàgg wax ñu di ñu saaga du lii lañ fi yàgg wax ñu di ñu saaga xaaral ma indi leen beneen ñu doog a jàll nag lambar lambar yi man moom man moom kii laa leen di defal rek journée économique andil leen mbaam àll yi andil leen gor yi doomi lappatoo yi ñu toog seen kaw bopp yi kenn du am jàmm. Yeah.